ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf foo dégg gaynde njaay xamal ne mbara wàcc la gaynde sénégal yi ca coupe d'Afrique ba ñuy amal ca Cameroun ñoom la mboolem ne kay ñu xëy ndool xëy tey ji l'observateur nañu réew maa ngi dund bànneexu football démb la ñu daje ak Burkina Faso ci demi-finale yi dóor ko ñetti bal ci benn jàll final Abdou Diallo moo njëkk a di di Idrissa Gana Gueye ñëw sàppali yëf yi ak beneenu bit Sadio Mané tëj wax ji ak ñetteelu bit journal lay fa nañu sénégal dem na final Sud Quotidien ak la yaa nga ca final ba nañu def nañu ko journal Les Échos feelu leen ba bind na ñoo final journal record xëy dellu si ci match bi woon démb ci diggante gaynde yu Sénégal yeeg étalon yu Burkina Faso yi ba di ñu wax ci xëtamu njëkk ne gaynde yi dañoo wanaasu étalon yi Vox Populi nañu Sénégal dóor na démb Burkina Faso ñetti bal ci benn dem final réew ma toj ba ci buntu palais de la sax démb ci guddi gi yéenekaay bi ne nañu askan waa nga fa woon àndoon ak président Macky Sall doon zibile ak a feetu stade yéenekaay nañu gaynde Burkina Faso ki toj max bi moo di Sadio Mané dafa meloon ni jinne ci terrain bi suur soi mel ne ku naan ko bilaay waxati ko moom Sadio Mané gonek bàmbaali gi moo wane yoon wa gaa yi jóg topp ci accélérateur passeur buteur jikkooy ndaanaan gi ñu ko xamee ci réewi tubaab yi loole rek la Sadio Mané wane démb entraîneur équipe nationale bu Sénégal Aliou Cissé di wax ci yéenekaay bi ne exemple dëgg leader technique leader social mooy Sadio Mané Aliou Cissé ne ci vestiaire yi ñëpp ay xool ci Sadio Mané bu waxee ñëpp a déglu mu ne moom Aliou Cissé su amee lu mu bëgg ci max ci Sadio Mané la koy jaar ñu ci soleil national mi ko xëyee moom Sadio Mané international ba di ñu wax ne taxawaayu patron dëgg la taxawe démb Sadio en patron moom patron bi di Sadio Mané ay kàddoom ñu ngi ci xët mu njukko enquête yéen kay nee na ñoo ngi final lu baax la waaye gañe coupe bi moo ñu tax a jóg ndax dem final te gañe woo ko daanaka mook bañ a finaalu ñoo yem ñu yemaat ci xët mu njukko l'observateur gisaat fa beneen xibaar mi ngi jëm ci ndaje mi Macky Sall def d ak secrétariat exécutif national bu partem bii di APR bi nañu élection locale yi ñu génn ak ni mu tëddee lañ fa doon waxtaane wax na ca moom Macky Sall

local yi fi woon coow li pënd bi wuréegul ca Jolof ubbil sursuwa Ousmane Sow Sambéré ma gañe mairie bu Baxkeji mook ñi mu àndal yéenekaay bi nee nañu mer nañu lool ci li leen partisan yu Doudou Sow yi di waxal mu di ministre Samba Ndiobène Ka moo ne woon ci ginnaaw Ousmane Sow Sambéré doon ko jàppale ba tax mu gañe mairie ba cellule de communication bu Ousmane Sow Sambéré weddi nañu ko ba mu set wecc jàpp ne seen victoire bi la ñu bëgg a salteel mbir mu salte te ñaaw yéeme moo nekk mu njëkku libération mu di ñaari góor jigéen kenn ki la am keneen ki am ñoom ñaari góor jigéen yooyee la ñu bett ca jàkka ja ca amitié baobab karak ñuy warante ak di def yëfi saay-saay journal libération nañu ci jamono ji ñépp concentré woon ca max sénégal burkina faso bi ci la ñaari góor jigéen yi demee ca biir jàkka ja doon fa siim seen mari ngàññi le ñambour hôtel et résidence seen savon yi di créole docteur Touraay